mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax a baax fu waay mën a ne waaye léeg-léeg nag mbokk yi dafay baax ñuy fàttaliku ñi nga xamante ne bi macha allah dañu génn àddina parce que nag ci àddina bi la ñu nekkoon mbokk yi ci biir loolu dañ fay jaaree rek di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm ak salaam mbokk yi ñu ne jàmm ci la lépp xaj yal nañu koy yàlla may yàlla may leen ko yéen waaye yàlla may ko doomu aadama yëpp fépp fu waay mën a ne bu ñu jógee ci jàmm joojulee mbokk yi alors c'est fois il faut ñuy xaw doxantu ci hôpitaux yi parce qu'il euh, y a des cas, hein, des cas très difficiles. Alors, ce qui fait que dañuy ñaanal aussi nit ñi wér waaye tamit wér le mbokk yi daf cee am solo alors chaque fois dama koy wax àddina léeg-léeg nga defe ne problème ci yow rek la nekk déedéet ah, léeg-léeg nit ki nag am bànneex ba yaakaar ne àddina bànneex rek la mais dañu ne déedéet dañu ne ñaar la day am bànneex léeg-léeg moo am naqar suñu nekk nag ci naqar yal na yàlla may courage ba pare nag jàppale ñu ba nga xamante ne bi naqar boobu le mbokk yi dafay mujjee nekk bànneex en tout cas mbokk yi euh, ñu ñëw nag ci seen émission euh, tam tamu tey dañuy am mbégte saa su ne mbokk yi bu ñu feggoo ki nga xamante ne bi euh, moom mooy euh, madame Guèye Maymouna Sy alors Maymouna tey daf fi wuutu ki nga xamante ne moom mooy Mariam Mariam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax alors euh, Maymouna tey dafa ñëw ñun ci ku nga xamante ne bi jaaroon na fi waaye comme nag macha allah dafa génn àddina muy le général Cissé nga xamante ne bi def na liggéey bu rafet fii ci Sénégal RTS 2 à sa façon dina ko rendre hommage ci référence parce que nag la macha allah ci biir référence yi mbokk

développement personnel Tay li ñuy waxtaanee muy méthode AIDA alors euh, ñom ñi nga xamante dañu nekk ci communication bi machallah allah mbokk yi bu ci dañu ñu faram fàcceel loolu lépp alors gis ngeen ko ma ngi koy présenté sànq muy suñu consultant waye tamit nekk coach en développement personnel muy suñu xarit euh, Cheikh Tidiane Ndiaye mbokk yi madame Régie dellu si waat que bu mag la mbokk yi parce que defe naa ne waroon nañ am coulisse su tam-tam leena li muy def laata euh, vraiment émission bi di démarrer doy na waar mais toujours dans la bonne humeur te loolu la ñu bëgg transmettre leen yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan alors leena euh, saa su ne damay damay kontaan euh, bu ma feggoo ak yow parce que macha allah la nga ñuy indil ci li nga xamante ne bii moom mooy développement personnel dafa am solo tey nga ñëw ak ñun ci méthode Aïda maa ngi lay nuyu leena di la dalal jàmm saa su ne di kontaan alors j'ai retrouvé le nappi bi ñu doon defal et ça doit merveille merci beaucoup mm-hmm. euh, Yaham Je nga rek retour aux sources mm-hmm. Euh, loolu moo tax euh, maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ak euh, téléspectateurs yi ni ko waxee nag kon tey ci communication la ñuy waxtaanee méthode AIDA. Mm-hmm. mi nga xam ne ni nii dafa am solo loolu ci ko xam ne ni nii dafa bëgg a mener benn campagne publicitaire. très bien ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye di nuyu bu baax a baax suñu xarit madame Guèye may mën alors may dañuy kontaan wax dëgg yàlla ci wàllu référence di dellu si waat ci le général Lamine Cissé mu nekk général bu nga xamante ne bi macha allah liggéeyam ci Sénégal euh, defe naa ne ñëpp gis nañ ko ñu profité encore une fois di jaale toute sa famille mm. euh, nga xam ne ña nga fekk fële euh, baax ca ñoom baato di ci madame Cissé Kodou Mohamed mm-hmm. waaye di ci jaale ki nga xam Mohamed Sissé. alors c'est un honneur à chaque fois de mm-hmm. faire yow waaye nag ki ñuy rendra ñuy rendre hommage RTS2 defoon nañ ko référence mm-hmm. il fallait absolument que nous dellu c'était important c'était important ñu delloo si ko waat Yaxam ndax dafa nek ko xamantene dafa mat référence ci mhm. Sénégal ci Afrique ak danaka mën nañ wax ci àddina euh, mu def liggéey bo xamantene euh, du fay ba mukk mhm. lolo tax nak euh, RTS 2 né comme demoon nañu ba Sokone mhm. jëli fa ay images yo xam dañ ko fa doon sargal de son vivant ñu né foog ñu tegaat ko ñun tamit à notre manière ñu ko koo wat njukkal jaaré ci tamit présenter suñu condoléances ñëpp ñi nga xamantene ay am di jàmmam lañu ak ay famille wam muy le général Lamine Cissé très bien alors il est important

di am encore une fois fierté dellu si waat ci plateau Tam Tam. Mhm. donc côté dañu ñëw ak méthode aide mhm. parce que domaine publicité dafa yaatu. mais li ñuy fàtte souvent moy soy def publicité ki tax nga koy def nit la. Mhm. donc nit nga bëgg mu gis nit xelam dafa am nu muy xalaatee. dafa am état d'esprit bu mu andal donc fi nga mëna a jaay nit ki ba mu comprendre lan moy publicité bi sa message jàll loolu moo waral ñu def choix bi tey. très bien en tout cas dinañ ci ñëw largement dans quelques instants mbokk yi ñu yegg si nag ci référence andi ci ak madame Guèye Maïmouna Sy alors nu mu ko waxee dañu am honneur mbokk yi tey euh, di rendre hommage le général Lamine Cissé donc euh, moom génn na àddina le 19 avril bi passé dañuy dellu si waat ci journée bu nga xamante ne bi may mu ngi koy wax dañ ko ko sargalale woon fële ca dëkkam ñombaato mbokk yi ñu dem xool sujet bi dellu waxtaanee ko. duñu mën lu muy euh, bésu tey ji wax suñu kontante suñu mbëgte ci teraanga ji nga xam population waa Sokone yëpp ñoo ko defal suñu xarit suñu genn wàll mu général Lamine Cissé. Je suis le général Lamine Cissé. J'ai été chef euh, directeur de la sécurité publique Sénégal de 87 à 91. J'ai été chef d'état-major général des armées. Avant cela, j'ai été inspecteur général des forces armées. Et puis, euh, ensuite, j'ai été ministre de l'Intérieur de 1998 à l'an 2000. Ça fait déjà loin. Ensuite, j'ai servi pour les Nations Unies pendant huit ans au niveau international. J'ai terminé cette carrière des Nations Unies comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest à l'UNOVA à Dakar. Maintenant, je suis consultant international et je continue à travailler. C'est pour vous dire euh, euh, combien je suis heureux de recevoir cette distinction à laquelle je ne m'attendais pas, il faut le dire. Euh, le fait de me donner le nom d'une rue dans ma ville natale, où je suis né, j'ai grandi, vraiment paisiblement dafa jafé ñuy dox ci mbéd yi xalé yi di wax naan ki la bëgg a rôle parce que repère yi nit ñi dañu réer ñu ku ñu ray donc général tonton général gatché ngalama nous voulons que les enfants de Sokone ñu xamné ñom amna ñu yoon amna ñu royu kay pour ñu roy ci général général Cissé c'est un enfant de Sokon, Don lek fi cereg mew ak cereg mbuum Don dem di paañi don daron dem di paañi fi. Fofu la jàngee fe. Ah, dama koy dégg mune ma man nosto moo ma bëbaxoon ci géej gi ca laa ma mun fe. et comme beaucoup d'entre nous et des enfants de Sokon, mais di lek cereg mew di def tànki di football mais am am di général de l'armée sénégalaise. Cet homme qui a été décoré plusieurs fois, entre autres décorations, Grand Croix de l'Ordre national du Lion au Sénégal, Grand Croix de l'Ordre du Mérite au Sénégal, commandeur à l'Ordre national de Gambie, chevalier de l'Ordre national du Nigeria, officier de la Légion d'honneur en France, grand officier de l'Ordre national de mérite en France, je voudrais nommer par là cet homme qui est en face de nous, le général Lamine Sissé. Le général Lamine Sissé est né en 1939 ici à Sokon même. Désormais, cette rue portera le nom du général Lamine pour dire que may def naa ne àddina coucou ko jàpp yow yaa ko jàpp mais moom mhm. dafa mel na kenn mhm. alors euh, vraiment euh, hommage bi c'était important alors mu mhm. nekk nit ku nga xamante bi euh, macha allah may ñu ñëwaat rek tout tuuti ci fonction yi nga occupé na ko directeur sécurité publique mu que lu am solo SEMGA comme koy chef d'état-major des armées que ministre de l'intérieur du ci Sénégal waaye nag que aussi ku nga xamante ne bi nekkoon na Nations Unies di fa am ay ay fonction yu kawé <laughs> waaye ba ba nii rek mi ngi nekkoon tamit consultant international. Mm-hmm. moo koo xamante ne bii ci giiru dundam yépp mm-hmm. ma ko doon liggéey non seulement pour le Sénégal mais ma ko doon liggéey aussi pour Adina. yépp ya xam li nga wax noonu la parce que général Lamine Cissé yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko. Mhm. Euh, bu ñu duggaatee ci parcours am euh, dinañ gis ne dafa am parcours boo xamante ne vraiment lu ñu naan un parcours élogieux. Mhm. am na jaar-jaar bu rafet. parce que ba mu tollee ci jàng dafa jàng ba mu tollee tamit ci liggéey dafa liggéey ba pare mhm. ràññeeku nag ci biiri maasam loolu lépp nag xam naa dañ koy delloo rek ci euh, ndogal goo xamante ne ndogal wala nattu lañ koy wax boo xam ne wàcc na ci moom parce que pour ñu rappeler moom muy am euh, daanaka ñaari at la waajuram bu góor génn àdduna donc yaayam moo ko yar loolu nag mu mel ni dafa nekk benn facteur boo xamante ne à chaque fois loolu da ko doon topp euh, gisuma sama way waajur bu góor sama yaay moo ma yar kon dama war a ñafe dama war a réussir dama war a tekki euh, ngir delloo njukkal sama sama waajur bu jigéen mhm. alors général Lamine Cissé nag yaa xam dañuy wax ne Saint-Cyr la génnee mhm. Saint-Cyr nag mooy école bi nga xam ne fa la ñu tàggatee les officiers la mhm. crème des officiers maanaam ñi gën a xarañ ci ñu gën a xarañ ci officiers yi kon ku fa génn rek yow ñu ngi séentu nga nekk kilifa bu mag a mag ci biir l'armée gi mhm. euh, ginnaaw loolu occupé na ay fonctions yu bëri wax nga ko fii ci Sénégal ak ci bitim réew mhm. wante itam li ñu gën a jàpp ci général Lamine Cissé mooy ci wàllu politique mhm. liggéey bu am solo boo xamante ne def na ko ba ñuy mënee li nga xam ne transition démocratique Sénégal euh, élection yu 2000 ñu nommé ko woon mu nekkoon ministre de l'intérieur 98 euh, ba 2000 mu ñëw vraiment organisé ay élections yu transparentes ba pare nekk ay élection yu libre yoo xam ne vraiment Afrique ak aduna yépp fa lañ jaaree naw Sénégal ba léegi nii ci ci ci way bu rafet boo xamante ne am nañ ko ba ñuy jot suñu première alternance très bien dinañ mhm. dellu si waat yow alors euh, euh, Lena euh, ñu ngi ci nuyu képp ko nga xamante ne bi sincère nga parce que il faut dire que école boobu macha allah dafa am sénégalais yu bëri yu fa jógee maa ngi si nuyu d'ailleurs le général Mansour Niang mhm. nga xamante ne bi moom itamit macha allah liggéeyam rafet na ci Sénégal mhm. alors Lena mu nekk ay références yu nga xamante ne bi je pense que magu démb yi il faut que ñun de temps en temps ñu ciy dellu si di ci xuusaat parce que je pense parce que valeur yi nga xamantene bi amoon nañ ko valeur nit kessé la ñuy wax liggéey parce que buñu né nit nité tax ñu wax sen nité yóbbu na leen ba nga xamantene bi amnañu ay raaya yu ñu mérité paré nak tok ci di jappalé askan wi et je pense que lolu il est extrêmement important que chaque fois ñu ciy dellu wat parce que amna lu bëri lu nga xamantene bi machallah allah daf xaw réer Mhm. te xam nga loolu fan lay war a mën a jaar. Mhm. ci école bi rek. Mhm. parce que tey jii bu ñu amee benn rubrique bu mel ni référence nga xam ne dañuy mettre en avant euh, genre nit yi. Euh, dafa nekk lu am solo mais pour que ñëpp mën ci jot aussi faw rek ñu koy jaarale ci euh, ci l'école. parce que si histoire la bokk moom dina bokk ci histoire Sénégal Afrique ba à jamais. donc ce serait intéressant pour rejoindre donc ce ce contribution bi nga def nii mm-hmm. léegi que ñu koy mën a di jàngale aussi euh, ci école yi surtout mm-hmm. que ci époque époque contemporaine bi la la bokk kon mm-hmm.

Mm-hmm. roy bu baax xam seen histoire c'est important. c'est important parce que léegi foo dem dañuy wax waxu leadership. Mm-hmm. donc même bu fekkee xale yi tubaab yeeg ñeneen ñi leen jàngal ñooñu nañu gën a miin. Mm-hmm. même étudiant, yeeg yooyu modèles yi ñu leen di tuddal yëpp di se ëpp c'est à l'étranger. alors que am nañ ci suñu dëkk ñoo xam ne ay références lañ ñu ñu war a jàng. seen histoire. donc comme tu dis moom par exemple li ma gën a neex ci affaire bi mooy ñi ko rendre hommage mais nekkul hommage bu posthume dañ ko def moment bi muy dund. beneen bi ci am solo aussi mooy ñi nga xam lool hommage bi ñu ko rendre. Mhm. dina am lu mu def ci ñi dëkk biir Sokone. surtout jeunes yeeg yooyu. Mhm. dina leen mën a inspirer dina mën a nekk benn fierté. Mhm. ba di nga gis ku xool ci moom bëgg am fenn fo àgg. donc loolu aussi baax nañu boole ko ci suñu système léegi ci wàllu jàngale de sorte que ñu mën a xam. ni Sénégal aussi am nañ suñu ay références. très bien alors euh, je pense que May euh, légui euh, ñi ngi commencé am habitude. Mhm. de rendre hommage la nit ki di génn adina mhm. parce que tay rue bi nga xamantene bi mi ngi ni ñu koy gis. Mhm. tuddee nañ ko. mu nga foofu ca Sokone fa nga xamantene bi fofu lo soso et je pense que loolu tamit fay am solo dëkk bu ne. ki nga ñi nga xamantene bi dañu fay def liggéey bu baax. tekki ci jappalé adina bi je pense qu'il est important à chaque fois ñu leen di rendre hommage ci dëkk boobule. ça fait que ku romb sax di nga né ah rue Général Lamine Cissé. mo doon kan xeyna di du ñak

yaakaar naa ne loolu lu rafet lay doon da koy gën a neex donte sax ne tamit boo xaaree ba mu génn àdduna nga def ko itam njukkal la boo xamante ne dañ ko koy delloo comme ni nga ko defalee général Lamine Cissé alors yaa xam peut-être xëy na man lu ma ci bëgg a dolli rek mooy que ne mottali sànq jaar-jaaram maa ngi doon wax naan moom dafa juddu wajuram bu góor teel a faatu mu ñafe ba àgg fi mu àgg wante ñu wax tamit ne ci côté wajuram bu góor seeni famille dañu nekkoon ñoo xam ne ay chef lañu te ci jamono boobu dañu doon faral di wax naan dafay am une ligne euh, toute tracée. Mhm. pour képp koo xamante ne yow sa sa sa maam wala sa papa chef de canton la woon. Mhm. mooy lan mooy ne yow da nga war a jàng da nga war a réussir. Mhm. waroo wàcc loolu. donc loolu itam moom mu jël ko vraiment euh, def ko euh, leitmotiv boo xamante ne dimbali na ko bu baax a baax ci parcours am. ci biir parcours boobu yaa xam ba tey xamna dina, dinañ taxaw tuuti ci euh, li nga xamantene ne ay décoration yu mu jotta am waaw wax nañ ci ay poste yu mu jotta occupé mm-hmm. mais pratiquement mën nañ wax nañ jotna na les plus hautes décorations muy fi ci Sénégal muy ci France mm-hmm. ci France nak li nga xam moy légion d'honneur mën nañ wax ne mom moy euh, premier africain bu ko jot ci euh, mm-hmm. légion d'honneur boobu nga xamante ne dañ ko fay joxe premier officier mm-hmm. africain boo xamante ne jox nañ ko ko mm-hmm. euh, Sénégal fii nag euh, daanaka moom pratiquement yépp jot na ko muy ko ni nga koy waxatee sax ordre du mérite muy commandeur ak yeneen décoration yépp daanaka presque yooyu jot nañ ko élevé ci grade boobu noonu et liñ ci dolli rek mooy que ne liggéeyam bi nga xamante ne da ko doon def te du ci noppalu te mu ko doon def ak rigueur moo ko may mu dem ba àgg foofu mu àgg ci bi décoration yi ma taxaw ci benn rek boo xamante ne dafa am solo parce que daf ko def pour askan daf ko def euh, pour toute l'humanité moy action bu am solo bo xamantene def nako ci ca Philippines mhm. euh, ci liguey bo xamantene mu ngi ko fa don def ñu sauver fa ay bakkan ah. donc euh, lolu yep dafa bax ndaw ñi mhm. xam ko génération bu bu mhm. bees bi xam ko ndax nit ñi dañuy faral di wax naan amuñu référence amuñu modèle xana kay dañu naan wanuñu leen référence yi wanuñu leen modèle yi waaye defe naa ne loolu RTS doomu ngi gor góorgóorlu bu baax baax lolu wax nañ ko ci wàllu liggéeyam way dañuy ñew ci walu nit ki parce que

dañuy naan ndax mbokk yee ko wax bu ñu mhm. indee ay seede yu rafet ci diw dañuy naan ndax mbokk yee ko wax mhm. donc loolu bu ñu ko indee wax ko mhm. war nañ koo gën war war nañ koo mën a gëm euh, d'autant plus que ne tamit am na ay université euh, par exemple aux États-Unis fi nga xam ne fa la jàngee Washington def nañ ko docteur honoris causa vraiment yeneen médaille yu bëri yoo xamante ne am na ko wante loolu yëpp yaakaar naa ne bu ñu jëlee lii di jaar-jaaram ak parcours am mu euh, caractère bi mu am certainement day am lien ak mhm. personnalité absolument ak ni nga xamantene non lay jëflante ak mhm. doomu adama yi au quotidien muy ci famille wam muy mhm. ci ay amis d'enfance am ak ay et puis ak éducation bi parce que ku ku xam gox ba nga xamantene dafa dëkk da ngay xam ne que ñoom itamit ñu bëgg l'islam la ñoom tamit ñu gëm l'islam la ñoom tamit ñu gëstu ci walu l'islam la muy waa kon ñi ngi leen di nuyu bu baax baax euh, kon nak defé naa ne nit c'est un tout c'est c'est l'éducation de base c'est la mu jang ci école ba c'est la société qui l'entoure c'est l'affection justement euh, d'une parents et nous mhm. si remercier encore une fois les mamans mhm. seules mhm. qui élèvent leurs enfants parce que rien na que digne élever sa doom ba mu yegg si grade bi defenane tak nga sa sœur pour que xalé bi mun am ce genre d'éducation waaw moy jigen yi nga xamantene dañu dañoo goor comme on dit mhm. euh, jigéen yoo xamante ne dañu taxaw nek yaay mhm. nek nek papa mhm. dañ leen di sargal sa su nek et euh, di ñaan rek euh, parcours bi nga xamantene général Lamine Cissé am ko ndaw yépp ñu dem ñu seug si ñu xol ko ndax mu mën leen inspirer ci teunk dal xamna né du yag léegi nga ne ma faw ñu xuus uh-huh. li ñuy jàpp rek ci général Lamine Cissé wala man limay japp moy que né il a été un grand artisan de la démocratie tout à fait leneen li moy que ne il a été un militaire exemplaire. oui ndax ay masam euh, fépp foo xamante ne taxaw nañ fa. mom mo mhm. mo moo mës a ci kanam. Mhm. Euh, lenen li nga xamantene mom lay laay moy que ne tamit il a marqué son époque. surtout mhm. euh, ci walu sécurité en Afrique. sans que Cheikh mu ngi wax waxu leadership. bu ñu wër leader bo xamantene dafa woné xarañam. ci walu secteur sécurité en Afrique je pense que né général le directeur de la sécurité publique. alors may dañu lay remercier bu baax baax di ñaan yalla souf sedd ci kawam te defe naa ne àddina comme

waaw euh, gis ngeen nag suñu xarit euh, Iba les ateliers de Iba mbokk yi may fàttali ne euh, tous les samedis Iba dafay nekk en live and direct fii ci tam tam du week-end alors Lena, silicone cornet bi defe naa ne ñun gis nañ ko am na neen luñ ko lekkee mais je pense que li nga xamante ne bi def na ak ak accompagnement bi def naa ne dafay baax ci ñun aussi non man nag ndeysaan musuma lek ci likon kaane c'est vrai mais tu sais il faut venir ici parce que tam tam du du samedi. affaire daf fi nek fees fi dell. xam du ma wu sama kër. Ah. ñëw ba fi pour ngeen may jox lek alors que jeudi bi do len mako jox. Hmm. je vais pas le faire. Nek lan nga bëggoon ibadi di jeudi. waaw muy yone quoi alors euh, May euh, gis nga li nga xamante ne bi Iba ko indil mhm. alors c'est vrai que cuisine mhm. euh, léegi dafay traverser les frontières c'est-à-dire que et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des découvertes mhm. mais améliorées et à la sénégalaise en fait Waouh, waaw loolu mooy point fort u Iba moom day jël plat yi nga xamante c'est connu c'est des plats yoo xamante vraiment ni ñi bëgg nañ ko mais mu adapté ko ak ñun suñu produit yi nga xamantene mom lañu am parce que ma ngi xol vidéo bi légui non non non non bon <laughs> des fois waaw que c'est première partie bi ah, ah, par yenn saa doo goûté de <laughs> bu fekkee voilà donc je disais que ne euh, am na solo trop parce que mom day jël suñu produits locaux yi. Mhm. mu xol nan la nan la ko mënee adapté. ak plat yooyu mhm. euh ba nga xamante su plat bi paré après yow boo boo boko ko boo donc ding ci am ling ci wara jël en terme d'apport nutritionnel ak yoyu mais en même temps aussi ding ci si consommer local. absolument et, et c'est important et surtout luma gëna gën neex. may moy que euh, Iba fi utiliser épices yu bëri. Mhm. alors il faut dire que épices yi je pense que c'est en vogue maintenant. ñëpp ñi ngi utiliser épices yi. mais te dafa baax ta am na yenn yu nga xamante ne bi xëy duñ ko Google. je vous assure en goutte, les plats de Iba, mais c'est magnifique, succulent. t'as rien entendu Mike? Waouh, waaw succulent l'autre moment je confirme franchement am na si yoo xamante ne moom fii la may damay déguster euh, peut-être juste compléter que né euh, au-delà des épices yi nga xamante ne da koy utiliser aussi euh, ni mu koy toggee mhm. maanaam du sens ak diwlin lu mhm. xam nga gastronomie bu ñu ko waxee tamit c'est un art mhm. comme un art yi donc déjà nous muy dresser table bi rek teg ko xolo saaren bi yërëm naa ko

parce que comme nous avons cuisine si mhm. art culinaire c'est parce que art absolument donc art dafa fait imagination Tout à fait. Mhm. Mhm. et puis et puis et puis euh, ne pas avoir peur de mixer certaines choses alors nous, nous ci li nga nous que nous nous doon à chaque fois parce que je pense que nous, tellement nous, nous ñun li nga nous nous, nous ñun nous nous te nous ñeneen nous nous comme ay qualité yooyu ñeneen ñaa ngi koy jël. di non c'est vrai di ci def lu ne. Mhm. léegi li nga xamante ne bi moom par exemple am étude bu mag bu allemand yi def. Mhm. Mhm. conservation. c' est à dire que l'équipe bi boo ko jëlee boo ci defee sa ay fruits wala nga def ci sa ay légumes da koy conserver. normalement mais ñun nag comme léegi chaud euh, chaud chaud bi dafa bëri ah.

de champagne ak lepp dañ ko ci mhm. def tout à fait euh, alors en tout cas euh, émission tam tan may taxna na ba ma wut ben leket bo xamante man ko bay ci sama biir waañ te je pense que war nañ ko wut ñun ñëpp même ñi nek étranger mhm. lawtal la dafa baax tout simplement ci kër en tout cas dañuy remercier encore une fois suñu xarit Iba les ateliers de Iba nga xamante bi euh, mbokk yi Iba mën ngeen ko gis ci réseaux sociaux yëpp parce que ça su ne mi ngi def ay togg yu am solo leena yaa ngi parce que xamna naa ne da ngay contane à chaque fois bo gisee suñu xarit Iba <laughs> mbokk yi nu xuus yegg si nag ci li nga xamante moy développement personnel alors sans rien ngi wax communication euh, tay dañuy ñëw ci walu méthode AIDA alors utiliser ci euh, marketing pour ay euh, campagne publicitaire yo xamante très efficace Nous yi ñu dem xol lan la ci daan indil delu waxtan ci ak

attention nek na composante yi nga xam ñom ñoo ëpp solo ci walum publicité loolu bu amul dafa melni action yi ñi mëna def ngir mëna jot ki nga xam mom moy consommateur bi wala client bi fay jafé publicité dafa war a susciter gannaaw loolu lu nga xam mom moy intérêt intérêt nak ci xol bu ñëkk bi bu démé ci li nga xam mom moy campagne affichage wana nek li wara jitu bu ñaari phase yoyu wesso faw rek ñu provoquer ci client bi li nga xam ne moom mooy désir bu désir passé nag ci la ñuy mën a xam ndax méthode AIDA marché na wala déet ndax Boba, li nga xam ne moom mooy action bi ci lay am méthode AIDA du ñëpp ñoo xam ne ne nii ci wàllu marketing wala communication la ñu nekk ñoom ñoo koy war a mën a def ndax boo ko bëggee def ci anam yu mucc ayib faw nga xam naka lañ koy tëralee bu loolu mooyee rek mën na yàq li nga xam ne moom mooy campagne publicitaire bi waaye dañuy gërëm bu baaxa baax Lena Sar parce que nak ku ñew tam tam faaw nga gor gor lu ci li nga xamanteni mom moy wolof bi en tout cas ñi ngi jaarama ñi nga xamanteni ñoko xalaat ñoko xalaat dama daan def journal olof wa mais dañ ci <laughs> gëna gëstu parce que chaque jour <laughs> eh. je veux dire muy mom di may di man di kenen ak mm. kenen man mm. on remercie parce que mm. la nga namp dafa am solo euh, pour nga mëna vraiment communiquer ak nit en tout cas na naka naka sarax <laughs> ok piège. <laughs> anyway en tout cas Léna <laughs> dañuy ñëw ak yow ci euh, méthode Aïda ku dégg ayda da nga naan mm. waaw méthode bi lan la. kon na nga gindi ñu ci yow ak Cheikh Tidiane. waaw xam nga Aïda nak mom buñ ko déggé rek dañuy mhm. fogné ap euh, soxna la. le genre yoy mhm. euh mu nekk tour sax bo xamné euh, c'est international mais tay du tour bi mo ñu intéressé. Mhm. parce que dafa am méthode bo xamné dañ koy utiliser ci walum euh, communication marketing publicité. mu nekk méthode Aïda. tay nak dañ fi am aussi benen natango bo xamné mom tam ci walum communication mom dina ci mëna wax lu bëri. très bien voilà méthode Aïda nak d'abord ci publicité lañ ko doon gëna gis. après mu dem ba dugg ci li nga xam ne moom mooy communication commerciale ba léegi euh, faw rek boo bëggee def euh, campagne publicitaire marketing boo xam ne ne nii euh, percuter mhm. il faut que nga jaar ci méthode boobu donc mu nekk loo xam ne ne nii ah attention comme ni ko waxee ci vidéo am. voilà mhm. ay clé la i intérêt des désirs beneen a bi di di action mhm. mu nekk loo xam ne ay étapes yoo war suivre la pour que yow sa client wala consommateur bi ngay bëgg a atteindre nga mun ko capter vraiment mu dem ci ba ci nga xam ne moom mooy achat bi. Mhm. Euh, léegi nag euh, suñu ki nga xam ne ni vraiment il nous accompagne au niveau de la RTS2 ci mhm. euh, programme yu bëri. Mhm. tey jii méthode AIDA est-ce que buñ ko doon indiwaat ci wàllum li nga xam ne moom mooy communication commerciale. efficacité bi naka lañ koy mën a mesurer bon faire sax déjà lañ ko mhm. bien sûr ko utiliser ci négociation marketing ak ci mhm. mais comme communication dafa am yu bu mhm. commercial bi yow li nga ci djublu nga wax ci produit de sorte que ñu xam ko. voilà mais efficacité bi déjà le fait que euh, méthode bi dafa li mu wax psychologie parce que yow def communiquer ki nga ciblé nit la mhm. être humain la comme yow mhm. donc mom aussi dafa am ay émotions dafa am yu yek mhm. parce que parfois ñun suñu xel dañ naan cerveau rek mais dafa am ay forme cerveau dafa am lu ñuy cerveau limbique donc ñun émotion yi ñi am yépp fofu lay jógee d'accord léegi objectif méthode bi efficacité bi mi ngi ci nga def lutax am émotion bu déclenché wu ci cerveau limbique bi de sorte que nit ki soxla légui léegi jënd produit bi wala service bi nga koy proposer wala émission bi nga koy wax na ko suivre par exemple. donc mhm. efficacité bi surtout ci loolu la nekk. et comment s'y prendre parce que gis nga. Mhm. damay donner exemple toujours ci nasaraan si. gis nga mhm. bu ñu la jëfalee publicité télé. yow boo demee dugg ci seen supermarché. public produit boobu. noo def di nga ko jënd. <laughs> si parce que parce que je pense que c'est des études. et puis xam nit yi xool cible bi et cetera ay études la parce que dafa am léegi da ngay dégg tout le temps ñuy wax waxu domaine neurosciences donc ñu intéressé wu ci xelu doomu aadama naka lay fonctionner naka la nit ki di jëfandikoo ak yooyu. Mhm. mais dañu inspiré wu ci neuroscience indi yeneen domaine ci mhm. leadership léegi da ngay dégg neuro leadership. Mhm. donc ci wàllu xel nit ki nan lay doxalee léegi da ngay dégg neuro marketing. par exemple di nga dugg ci supermarché produit yu concerne xale yi doo gis ñu teg ko fu kawe. marchandise bi aussi dafa am solo. voilà nga xam de sorte que xale bi dafay tolloo ak euh, auteur bi produit bi nekk gis ko joxuñ kaak yu demee noonu amna aussi donc neuromarketing marketing bob dañ ci inspiré wu ci walu publicité. d'accord de sorte qu'à chaque fois ñu xol fonctionnement wu xelu nit ni la mel. Mhm. amna lo xamni xel da koy gaaw japp jàpp. ci mhm. par exemple ci publicité dañuy wax chiffre 3 dafa nek lu symbolique ñet mhm. donc produit bi dañuy fexé ba tuddu ko dañuy ñew ne la. boo tam-tam émission la boo xam ne dafay def nangam ak nangam. Mm-hmm. boo seetaanee tam-tam di nga fa gis rubrique nangam ak nangam ak nangam kon guddi gu nekk jàppal RTS 2 tam-tam et cetera. Mm-hmm. donc dañ la koy de sorte que sa xel daf koy absolument mhm. donc ci li tax affaire bi recherche science. ba xam xelu doomu naka lay fonctionner. Mhm. alors Léna ci biir euh, ak naka la yi di di les gens ne se rendent pas compte. parce que mhm. y a y a y a tout tout il faut tout prendre en compte, les mhm. couleurs, il faut mhm. prendre en compte les heures de diffusion, à mhm. quelle heure, tu ban support. C'est un ensemble, le travail est énorme tout à mhm. fait euh, Moi, tax euh, ñu bëri ci yenn école euh, communication yi bu ñu lay former dañ aussi li nga xam ne moom sociologie ak psychologie mhm. dañ la koy jàngal parce que dafa am importance surtout pour ki nga xam ne ne nii moom lu muy bëgg a def moom mhm. marketing publicité ça rejoint un peu li Mame Cheikh di wax côté neurone aussi ngay stimuler parce que y a cette stimulation là qui fait que nit ki mën na bañ produit bi mais beaucoup y yeewee ci moom désir bi loolu mooy tax mu ñëw ba ci <laughs> consommation achat da ngay gis benn nit boo xam ne ne nii mhm. day dem euh, supermarché wala marché mhm. jënd ay produits yoo xam ne finalement da koy stocké du ko utiliser parce que mhm. réellement soxlawu ko mais parce que campagne AIDA bi euh, méthode AIDA bi marché na ci ci moom donc loolu mu nekk euh, comme li yaa xam di wax c'est un travail qui est périlleux donc peut-être ñuy gën a di jox ki nga xam ne ne nii moom mooy psychologue bi mu xool naka la koy mën a étudier surtout pour revenir si ban couleur mooy gën a intéressé par rapport ak ban produit sociologue bi aussi parce que il faut que ñu adapter ko mhm. à l'environnement mhm. parce que amna produit bo xamné boko boo Dakar mhm. du même pertinence bi ngay mën am donc lolu aussi dafa nek li nga xamné ni dafa am solo mais aussi ñi nga xamné tay ji tey jii pratiquer méthode AIDA est-ce que aussi ce ne sont pas entre guillemets des manipulateurs waaw <laughs> quelque part oui. quelque part oui <laughs> parce que parce que manipulation <laughs> ak euh, marketing ñoo ànd. waaw parce que publicité. Uh-huh. dañuy wax mais il y a des publicités mensongères. waaw loolu aussi d'ailleurs on s'en rend compte aussi. parfois li lay wax ci produit ak yow li ngay gis du doon mm-hmm. donc manipulation moom publicité moom communication ñoo ànd. Mm-hmm. même ci communication politique ça dañuy dégg ñu ne wax manipulation. lo xamni ni dañuy gëlëmal ñëpp. Mm-hmm. donc lolu aussi parfois fay am mënul ñak ci ci domaine bi mais. Euh, benen bi moy comme l'imu mu wax limu mu ci sociologie tudd ko ci psychologie parce que lolou dafa and ak xelu doomu and adama and ak consommateur bi mhm. parce que léegi ñu nek ci marketing dañuy utiliser concept yu bees depuis ñu commencé gëstu wàllu neuroscience neurosciences mhm. duñu wax consommateur dañuy wax consommateur ok mhm. parce que dañuy japp ni kii consommer acteur le aussi ci processus bi donc coco aussi amna ay désiram yàgg nañ dégg ñuy wax fu nekk le client est roi di ko mm-hmm. afficher fu nekk mm-hmm. pour wane ni aussi du da ngay jéem a yee bëgg nit ki kessé mm-hmm. mais mom aussi amna ay choix am mais n'empêche manipulation mom du fi jog parce que ñun ñëpp chaque jour ñu jël luñ sax man bëgg xam aussi Sénégal justement ci ci méthode yooyu fan la ci Sénégal toll est-ce que am nañ ci avancer bu mak parce que des fois amna yena campagne yo xamante tu te poses la question est-ce que réellement il y a eu un travail qui a été fait en avant euh, parce que fi problème bi moy ni ñi formé nit ñi ci communication. Mhm. soit li leen wax foog nga jàng tuuti sociologie ak tuuti psychologie. Mhm. mais presque doo ko gis. beneen bi mooy bu fekkee jàng nga ko tamit jamono day dox parce que neuromarketing beeg yi may wax biñ ko mhm. commencé jàng yàggul. donc nga nekk ci domaine bi il faut ngay def ay recherche. bu xam yenn yu bees yi loolu moo tax ñi koy utiliser bariwul par exemple dangay rob nga gis ben affiche publicité mais affiche dafa am ko wara defé OK par exemple li gëna important c'est affiche bi slogan bi wala contact yi surtout. Mhm. ñu war ko def en bas de l'affiche de sorte que nit ki pour mu gis ko. day yomb parce mhm. que dañ naan l'œil il va mieux quand il est au repos. Mhm. donc li tolloog sa li kawewul gis ko mo gëna yob nga gis li gëna kawé kawe. mais parfois ay règles la yo xamni liñ koy respecter, du bëri aussi. Mm -hmm. Mm-hmm. léegi dafa am ci toujours ci wàllum euh, communication commerciale. lo mm-hmm. xamné ni euh, dafa melni xawna mengo ak méthode AIDA mais batay du méthode AIDA. mom mm-hmm. moy euh, méthode Sonka. lan moy différence entre ñaar yoyu bon différence bi moy Sonka da nga boy jaay nit ki. wala nga koy proposer ben produit nga nek ci négociation il faut nga xam nit ki ci ban critère lay tanné li nga ko bëgg jaay donc Sonka bi ci waxtaan bi balaa ngay def sa argument di développer pour mu jënd ci waxtaan bi ngay fexe xam ki ci ban ci lan lay sukkandiku pour jënd ko est par exemple ci sympathie il faut que mu miin la mm-hmm. o bi ci orgueil il faut nga won ko ni lii ma lay jaay yow kisse ko fi am mm-hmm. n bi ci nouveauté faut nga won ko ni lii mooy lu mujj génn mm-hmm. c bi ci confort pour nga won ko ni lii simple na jafewul utiliser a bi ci argent faut nga won ko ni cherul wala ñen ñi sax nga won len ni dafa cher parce que pour ñom lu cher moy qualité. Mhm. S bi sécurité fo nga won ko ni li ma lay jaay dëgër naat. dina mhm. yàgg ak yow ak yu demee noonu. Mhm. donc loolu moy différence am ak euh, Aida bi parce que Aida bi da ngay def publicité mais fi da nga nek ci négociation di wax ak nit ki directement. di ko déglu di xam mom ban ci critères yooyu lay sukkandiku. Mhm. pour mën jënd donc boko xasse ba xam. Mhm. ci lolu ngay sukkandiku pour mën ko convaincre. donc ban moy jitu son cas ñuy njëkk jital tek ci Aïda wala inverse bi. non Aïda bi ngay jital d'accord ah, c'est-à-dire Aïda bi ci sa argumentaire lay bokk. non c'est-à-dire que yow son cas bi ngay commencer. Mhm. c'est-à-dire commencer nga wax ak nit ki. ci son cas bi fexé nga xam six yoy ban la ci fété so xasse ba xam fi mi fété nak c'est argumenter nga soog a topp ayda bi. d'accord très bien ah, alors alors mhm. May euh, dafa mel ne euh, Sénégal fi ñu toll je pense que entrepreneuriat bi dafa développé bu baax a mhm. alors méthode yi nga xamante ne bi tey euh, lenn indi na ko. Mhm. dafay dafay dafay jàppale ñi nga xamante bi ñoo ñooy pour ñu fësal. li nga xamante ne bi moom la ñuy liggéey. je pense que il faut aussi que ñu xool ay spécialistes yu mën a dem ci côté informel bi pour ñu xamal leen ne que nii ak nii boo ko doxalee sa ay mbir dana war a mën a jëm kanam. waaw yaa xam yow nag ki nga dalal nak fu man foofu laa bëggoon ñëwé sax ci géew gi ndax waxtaan bi amna solo am solo go xamantene xamna xam naa ne moom day suñu genre yi day bax ñu dem def mise à jour en leena n'est-ce pas jéem adapté wu tuuti ak neuroscience bi yoyu mais li nga wax dafa am solo parce que diñ nekk ci jamono jo xamné entrepreneuriat dafa xew ku nekk ya ngi jéem defal sa bop day bax so taxawalé dara ba jëmmal ko bu fekkente ne yow lu jëm ci walu publicité xamuloko forulo ci nga set sa wet ko xamantene mom loolu la jàng loolu la mën loolu la xarañ mhm. mu jàppale la si parce que ñun fii li ñuy perdre de vue mooy que ne dañuy bëgg yow nga nekk par exemple su su ma jëlee côté artistes yi wala mhm. artisan yow yaay nekk artisan bi mhm. yaay outil matière première bi yow yaay defar œuvre bi après yaay gérer marketing bi gérer publicité bi ba ci déposer sax spot yi ci rajo yeeg télé yi loolu yëpp yow yaa koy def donc loolu je pense que ne euh, dafa bëri bëri boo xamante ne day baax par yenn saay nga ut ku xam lii ku ci xarañ mu defal ko boppam donc je pense que opportunité la boo xam ne war nañ ko saisir nous nekk ci biir entrepreneuriat mais ñi ci secteur informel comme tu dis aussi ñu dimbali leen formaliser bu baax seen activité yi ñu def mhm. ba ñu xamal leen dafa am yoon pour nga booster mhm. yow say vente ak tamit mhm. nga yóbbu fu sori li nga xam ne nga pour nit ñi consommer Mmh. Mmh. mais je pense que surtout au-delà de l'entrepreneuriat nous devons concentrer les mmh. euh, méthodes parce que c'est surtout pour entreprise entreprises, nga euh, côté euh, stratégie commerciale promouvoir parce que bon su les entrepreneuriat, il y a aussi entrepreneuriat social bi nga c'est pas forcément pour vendre un service ou un produit donc là c'est plus pour les entreprises par exemple bëgg nga jaay ndox cible ce profil euh, profil client mhm. euh, tey jii kon euh, ñuy wax ci li nga aussi si statistique mhm. Mhm. lan moins important sous statistique pour quoi xam ne nii dafa mener campagne publicitaire tant que ko ci méthode AIDA bon statistique aussi de ci am solo parce que ba léegi nous ci le rechercher donc que bëgg utiliser méthode bi déjà statistique dina la permettre nga am assez d'information d'accord voilà voilà nga koy nga koy nga appliquer nga am assez d'information ci domaine bi ci publicité bi nga bëgg def aussi mais tamit am na statistique yoo xam ne dafa dëppoo ak résultat yi méthode bi di joxe. Mm-hmm. parce que dañu ne a euh, ni attention donc su fekkee téeméeri nit nga attirer seen attention. Mm-hmm. après aussi pour que nga nga nga yee intérêt bi c'est-à-dire yëf yi intéressé leen. Mm-hmm. nombre bi dafay wàññeeku. donc plus ngay dem après boo yeewee kii bi mbébét bi muy désir bi le nombre de personnes di gën a wàññeeku ba ba ngay am ñi am ci biir téeméer yooyu mhm. donc loolu aussi des bokk na ci li ñuy càmbar souvent ci wàllu statistiques yi alors mon aussi statistique statistiques euh, euh, solo une certaine organisation au niveau du Sénégal je pense que euh, nous maîtriser hein. mm-hmm. mais peut-être que ñi les grandes structures. mais nous mm-hmm. ci je pense que maîtriser mais il faut que nous ñuy di mm-hmm. coach. aussi parce que je dis n'importe quoi je pense par exemple aux éleveurs je pense

donc baax na aussi ñu fexe ba ñëpp mën ci jot man mhm. souvent dama koy def atelier yoo xam ne en wolof lay doon très bien pour ñu bëgg entreprendre wala ñu bëgg maîtriser yenn domaines yi mhm. parce que am na ñoo xam ne xëy na duñ dégg nasaraan te dinañ ko soxla aussi mhm. très bien euh, on va terminer Lena voilà dama bëggoon juste rebondir si benn affaire boo wax sànq mu am solo lool mooy euh, peut-être euh, Sénégal dans le positionner par rapport à loolu souvent fii da ngay ñëw gis des gens qui ni peut-être dépensé na ay millions pour faire sa publicité sa campagne yow da ngay ñëw pratiquement tu as le même produit nga def copier coller donc euh, loolu day tax nak euh, do démarquer ou de de la concurrence mhm. te l'ol de toute façon da ngay fexé ba gëna dolel ki ngay parce que mom mhm. dañuy carrément que c'est sa campagne qui est la plus efficace donc c'était juste pour rebondir par rapport à ça <laughs> très bien mhm. alors lan ngay denk ñi nga xamantene bi euh, dañu utiliser méthode Sonka bi ak méthode Aïda bi lan nga leen di bon di leen wax ni rek ñu gën ci def des gën ci recherche mais aussi et surtout parce que yooyu ay concept la ñu jëlee ci tubaab yi mm-hmm. mais ñu dëppale ko ak ñun suñu mm-hmm. société fi mu toll mm-hmm. parce que bu dul loolu rek souvent da ngay copier modèle bo xamné ne mhm. dëppoowul ak suñu réalité comme ni leena doon wax sank ci côté social bi mhm. nga fexé mu dëppoo rek ak absolument d'où l'importance de la culture May absolument c'est très mhm. important ci wàllu wu né et c'est déterminant sax euh, en euh, action commerciale ak yoy ak vente euh, très bien ñu ngi lay gërëm di la sant waaye di gërëm bu baax a baax suñu xarit leena parce que nak ñu ne ay méthodes yi nga xamantene bi xeyna ku melna man xamoko won donc ki nga xamné moy Cheikh Tidiane Ndiaye léral nañu ko kon nak lu way

Cheikh Tidiane lan nga gis ci fii sur la toile bi. gis naa daal ay nit ñu jaaxle. <laughs> dafa mel ni ay mbokk leen la de. waaw mais alors je comprends pas parce que gis naa ne léegi euh, ñoom dañuy faral di fooye ay mbir yu doy waar. <laughs> léeg-léeg ñu indi ay ay léopard. Les ah. léeg ñuy indi ay ay jaan ak ay mhm. c'est des jeux yo xamantani bi voilà moi je je comprends pas on le voit souvent ci toile bi. wóorul daal en tout cas. <laughs> très bien en tout cas dañu lay gëreum di la sante bu baax a mhm. baax euh, Cheikh Tidiane Ndiaye mbokk yi mhm. consultant coach ci walu développement personnel ñoo ngi lay gëreum di la sante bu baax baax. un dernier message. merci beaucoup di leen remercier encore une fois amone fierté dellu si ci ci plateau bi di rafetlu surtout façon bi ngeen koy fait et tout di remercier Léna bu baax ci mm-hmm. collaboration bi surtout ci le Midi Actu. absolument ñoo ngi lay remercier mbokk yi di euh, Midi Actu dafay am du lundi au jeudi euh, bu midi jotee waaye rediffusion bi c'est à 19h présenté par euh, sama Kalbi, Léna Lena Sarr justement Lena ñoo ngi lay remercier toujours un plaisir à chaque fois di faire yow waajalal koor gi nag dégg nga. incha ah oui ñun dañuy woor dañuy sant Thiam ah oui dañuy woor. <laughs> Euh, maam Cheikh nag sànq yaa ngi naan mbokk leen xal euh, xaalpulaar yi. Uh-huh. maya ngi nii tamit. <laughs> ñun ñaar lañ <laughs> non dañu niru ay tikkuleer. ah kon baax na merci beaucoup yaa xam mm-hmm. vraiment euh, ci yëpp partage bi et tout échange bi. Mm-hmm. di remercier surtout maam Cheikh vraiment pour sa disponibilité. toujours mm-hmm. pour la RTS. te day suivre tam tam mu du ci raté dara. ah super lu mu kii ne ma ah gis naa yaa xam kii nii ñu suivre. Mingi ngi di euh, remercier May ak euh, les téléspectateurs. merci beaucoup mm. toujours un plaisir de te recevoir di remercier beaucoup baax madame Guèye euh, Maymouna mu référence pour nga il est important que RTS dès le waat rendre hommage le général Lamine Sissé. merci beaucoup May. merci à toi Yaham. remercier également Lena Mme Cher, vraiment plateau bi et puis man ça m'a replongé un peu ci court. Mm-hmm. donc xam naa certainement bu émission bi pour les révisions. très bien voilà donc euh, peut-être nous joxe rendez-vous rek euh, mm. samedi ci biir Label 221. Inshallah. ma ngi remercier yeen yi nga xamantene bi su RTS 2 émission tam tam waaye di remercier euh, toutes les équipes techniques yi nga xamantene bi saa su ne dañuy ànd ñun di liggéey di remercier awandaw Latifa mi jaar ci numéro bi numéro téléphone am 77 768 34 34 mi di remercier di saluer ki nga xamantene bi moom moy isaba nek ci Sacré-Cœur 3 de la part de toute l'équipe bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir